ñu ngi leen di sant di gërëm mbay Samb bi nga xam ne moo jiite euh, sud bi di ko gërëm bu baax di kontaan ci xale yi nga xam ne ñoo fay liggéey euh, dañuy laaj rek ne fan la ñu toll ci waajtaay yi waajtaay alhamdulilahi rabbil alamina lépp yàlla sottal na ko yàlla matal na lépp liñ ci doon séentu yëpp yàlla defal na ko boppam parce que doomu aadama moom day sabablu rek waaye yàlla mooy yeggali kon ñun def nañ suñu sabablu yàlla yeggali na di ci des rek mooy xaar samdi ak jàmm muy la 29 ñu bokk fi daje rek ñaan yàlla mu may ñu ndam defal ñu ci sutura ba liñ ko bëggee ñu am ko fu nit mën a jógee di ñëwit yàlla sàmmal nga yegg si jàmm. ah bi ci des muy euh, li nga laaj muy yan autorité lañ fi xaar waaw yan autorité lañ fi xaar. parce que bu dee personnalité ku fi toog rek am nga personalité waaye yan responsable parce que responsable yi rek moo ëppante doole que yiñ fiy xaar mooy ñu ngi xaar bu di autorité diine muy politique yëpp ñu ngi leen fiy xaar parce que guddi ki defe naa ne buñ ko ootee kenn ku ne loo doon sallallahu alayhi wa sallam moo tax nga doon ko bu dee kilifa diine yi ku ne li nga doon yonent bee tax nga doon ko bu dee politique ne la nga doon yonent bee tax nga doon ko parce que gannaaw yàlla moo bind lépp ngir dara jëy Muhammad kon ku ci ne la nga am moo tax nga am ko ni ko Serigne Touba waxee ne wal fadlu inda rasulillahi xaraaru nee na ngëneel yonent bee ko yor ngëneel loo gis mu sax fi rek ci yonent bi la jóge kon nag guddi googu ñu ngi ciy séentu kilifa yëpp képp kuy kilifa ku aju non non mënuñu exact ne la diw dana ñëw non non xam nga damay bañ euh, lu yegg seegul ma ne la dana am ku ñëw boobaa damay fen parce que awma lu leer ndax nit mën na waaj bëgg a ñëw feebar dal ko wala mu waaj bëgg a ñëw dee dal ko lu ne mën na dal doomu aadama donc moo tax mais ñu ngi séentu ñañ daan séentu séentu itam ñeneen kon ñu ngi séentu rek alhamdulilah rabbil alamina borom xam-xam ñëw ñoo fi séentu kilifa diine yëpp ci bërëb ñu ngi leen fi séentu voilà ak. waa sa bis bi na mu daan tëddee rek yonent bi mbiram amul changement parce que moom moom moo daan wax ne euh, képp koo xam ne da ngay soppeeku rek bokkoo ci sama xeet donc amul soppeeku amul changement xanaa yokk-yokk mooy am liñ bëgg rek mooy kenn ku ñu teel a ñëw tëralin bi mooy ñëw ku ñël am place te ñu boole yar ak teggin ak euh, indi fi col gu yiw col gu sel kenn ba ñu fi indi yiwati parce que miti nu ñu tànn biiruñu góor ñi jigéen ñi buñ jaxasoo góor ñi de am nañ côté jigéen ñi am na fu ñu war a toog ñu sol col yu yiw guddi moo laaj loolu incha allah ñu fexe nag ñëpp teel a ñëw balaa heure bi jot.